mbokk yi ginnaaw bañ sant yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam tàllal suñuy loxo ci weer wu tedd yi nga xam ne ñi ngi ci aj bisub tey bisu bisub tey bi di bis bi nga xam ne moo gën ci bis yi nekk itam ci jël beenug weer wi tas ñen beenug weer wi suñu borom lim ci diggee mooy yërmandeem ku koy taataan ku ne mën nga ko taataane ci njët beenug weer wi moo tax ñuy tàllal suñu loxo di taataan ci suñu borom lii nga xam ne moo nekk ci àdduna si la jël ñëpp te moom rek moo ci mën dara ci kaw yërmandeem ak darajey weer wi ñu nekk ak darajey bis bi ñu tegg ak ñu nekk ak fan yu njëkk yi nga xam ne moom lañu nekk ñu ngi koy ñaan ci yërmandeem mu tegg ko ci àdduna ña nga xam ne jot na leen dara yàlla musal leen ñam dalagut yàlla musal leen ci boobum leen dal mukk ji mu jeexal ko tàkk ci àdduna te loolu suñu borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal ginnaaw loolu nag weeru tey jii li nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaane mooy dafa am yoo xam ne munta ñàkk ci koor yoo xam ne boo ko defut loo tudd loo jàpp ne woor nga itam sa koor des na booba nag bi ci njëkk mooy faw dangay am yéene ci war woor weeru weeru koor wi yéene ji nag niñ koy waxee mën nga koo def ci bis bu njëkk bi rek bu ko defee mu yóbbaale fan yi ci des yëpp lu dul ne dafa am ngànt loo xam ne dafa dox dafa dox sa digganteeg nga mënoon a nga mën a continuer ko weer wi ba mu jeex kon booy tàmb boo bu ngànt la jeexee ba ngay tàmbaliwaat da nga caa war a da war a beesalaat sa yéene ndax àggale yéene ji loola nag li tax mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo xamal ne jëf ju mu mën di doon la koy tax a àgg fa mu war a àgg la koy tax a mat la fa mu na mu war a mate mooy yéene mu mel ni nag loolu ba tey bu ko xoolee yërmande suñ borom feeñ na ci ndax kenn ku ne xam ne ak man ak man léeg-léeg mu të léeg-léeg ñu xaw a tële dara léeg-léegi ñu mën a rawante itam ci jëf yi waaye nag bu fekkee ne jëf yëpp ci yéene la ko suñ borom teg yaakaar naa yéene moom doomu aadama ju dox ju ne mën ngaa yéene loolu dañuy won rek gërmande ju réy ji nga xam ne moom la suñ borom denceel doomu aadama ngir jëf yi nga xam ne moom lay def da koo aj ci yéene te yéene ku ne moom mën na ko xëy na jëf yi mën nañ ci rawaat ci defin wi waaye yéene yi nag yaakaar naa kenn ku ne mën ngaa yéene mën ngaa àggale sa yéene itam foo ko bëgg nga àggale loolu nag du ñu war yërmane suñu borom yërmane yéene jooju nag buñ ko bëggee gën a firi mooy bala ngaa da am lu la wéer lu la wóor ci ne yow kat bu subaa dinaa woor te loolee ba ba wóor googee na am balaa fajar a jot waaye bu fekkee ne ba nga koy am fajar weesu na kon day mel ni yéene jë day mel ni woor boo wooree itam duñ jàpp ne yaa ngi ja yaa ngi woor ni nga war a woore ndax sa yéene matut faw yéen da am lu la leer ci ne man di bu suba danaa woor balaa fajara jot loolu ngay am loolu nag yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax ne képp koo xam ne dafa amutu amut lu ko wóor ci ne bala dana dana woor njëkk fajar di jot kooku nee na kooram amut solo dafa mel ni kon wóorut kon faw da am lu la leer ci ne dinaa woor suba balaa fajara jot ñaareel bi itam ba ca teguwaat ci yi nga xam ne muntu ñàkk ci koor mooy faw da ngay bàyyi yi nga xam ne moom la la suñ borom tere muy lekk ak naan ak bànneexu yi léelu da koy bay bàyyi mu tàmbalee ci bu fajar xase jot booba jant bi di soo loolu nag suñ borom moo ko wax ci alxuraan ne la ngeen mën ngeen a lekk man ngeen a naan ba fajar di jot bu fajar xasee jot nag na ngeen mottali seen koor ba guddi di jot loolu nag kon mooy ñaar yi nga xam ne mënut a ñàkk ci koor faaw da ngay am yéene te yéene ji ba da ngay am lu la leer ci ne danaa woor suba te ba loole la leer loole am nga ko balaa fajara jot ñaareel bi itam nga bàyyi yi nga xam ne moom la la suñ borom tere mu mel ni koor kon wuute na ak jëf yi nga xam ne moom la suñ borom farataat ci ñun ndax yi mu farataat ci yi ci ëpp yëpp mooy defal nangam la lay wax waaye koor moom bàyyil nangam la lay wax mu mel ni bàyyi googee nag loola bàyyi li mu doon li nga xam ne wuute na ak farata yi ci na moom bàyyi lay tekki waaye bu dee yeneen farata yi defal lay tekki kon loolu moo tax dara ji yu rëy yi nga xam ne moom la ko suñ borom jox mu jox ko ko ñu xam ne itam ne koor nag tekkiwul nag ñàkk lekk ak ñàkk naan waaye li muy tekki mooy lépp lu la suñ borom tere da nga ko war a bàyyi lépp loo xam ne itam suñ borom digal na la ko da nga war a def sa kemtulaay kattan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ne lekk koor de nekkul ci lekk rek ñàkk lekk ak ñàkk mu ne koor de àgg na ba ci boo ko defee waroo wax waxi caaxaan waroo jëf-jëfi caaxaan bu fekkee ne itam daa am koo xam ne xëy na wax na la loo xam ne nu dundoo na la dang li nga war a def mooy da ngaa war a doon ku neex deret ci wala koo xam ne joxula sa àq wala la nga war a nga yeeyoo ko kooku itam ñaar ñooñu ki la ki la wax wax ju ñaaw wala ki nga xam ne xëy na doya dal na la ñooñu nga leen di tontu mooy da nga leen di xamal ne man day dama nekk ci loo xam ne maanaam damay tere lépp loo xam ne lu tekkiwut ak ak ak mën a muñ ak lu tekkiwut mën a mën a jéggale ak lu tekkiwul doon koo xam ne ku neex dara ngay doon ndax yonent bi sallallahu alayhi wa delluwaat di wax ne itam képp koo xam ne bàyyi woo wax waxi neen yaa ngi woor ba noppi waaye say wax yépp daanaka waxi caaxaan rek lay doon jëf suy jëf yitam daanaka jëfi caaxaan la na nga xam ne yàlla amut soxla ci bàyyi ga nga bàyyi sa lekk ga ak bàyyi gi nga naan bàyyi daan gi yonentu ba sallallahu alayhi wa sallam di waxaat ba tey ne am na ñoo xam ne dañu ngi woor waaye de seen koor ga amuñ ci lu dul xiif képp am na ñoo xam ne itam ñu ngi taxaw di naafila guddi waaye seen naafila googee amuñ ci lu dul ñàkk a nelaw képp mu mel ni kon faw day li ngay def maanaam koor gi day ànd ak du yem ci rek ñàkk lekk ñàkk naanu waaye da nga ciy boole lépp loo xam ne lu la suñ borom tere la nga bàyyi ko lépp loo xam ne itam lu araam la nga fexe ba daw sa daw ba doo ca tabbi loolu dem ndax ndax koor ba ñu ba ko suñ borom di tëj dafa wax ne la ko la'allakum tattaqun maanaam koor gi day waral na ko ci yéen waaye nag doonut noo xam ne doonut loo xam ne yéen képp la ko mas sa waral ci yéen am na ñeneen ñu mu ko waraloon ci ñoom waaye nag lam ca jublu woon mooy bëgg ngeen ragal yàlla ndax kenn ku ne xam na ne koor ka koy def yàlla rek la ci seet waaye bu ko bu ci doon seet keneen mën na mën na bañ ndax bu la neexee lekk te kenn du ci xam dara bu la neexee naan te kenn du ci xam dara kon mën ngaa def yeneen tam te kenn du ci xam dara loola nag bàyyi ngeen ko bàyyi ngir yàlla lekkoo te yàlla képp tax naanoon te yàlla képp tax defoo yenn itam te yàlla képp tax loola tax looloo tax ñu xam ne kon lii lim nuy jàngal mooy ragal yàlla ak di yëg yàlla foo toll loola nag daa war a feeñ kon ci képp ku woor di gën a góorgóorlu ci fexe ba di yëg suñ borom di ko dund waxtu wu nekk ndax loola mooy tekki li nga xam ne moom la ko koor di jàngal yonent sëñ suñ sëñ tubaatam wax ci ne koor bu leen jàpp ne mukk mi ngi yem ci ñàkk lekk ak ñàkk naan ndax am na ñoo xam ne day ñu ngi woor mu mel ni kon xadis yi nga xam ne moom lay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la woy moom la wax moom la woyaat fii ci woy ci woy wi wax ne am na ñoo xam ne day ñu ngi woor a ànd ak nit ñi di woor waaye day amun ci seen koor gaagay lu dul xiif ndax kat mooy ni nga ñàkk a lekkee ñàkk koo naane na ko tëyee say cër ba sa benn cër du def loo xam ne wuute naa ak li suñ borom bëgg ci moom mu bëgg la ko misaal ci nan cër yooyee mu la wax ne na nga fexe ba téye ko ba benn du ci def lu dul li suñ borom bëgg mu ngi mel nii rek boo wooree na góor góorgóorlu ba bul xool lu araam xool ak gis nag boo xam nañ ne bokkut gis moom amoo ca pexe waaye xool moom yaa ko jublu kon gis gi bu ne da gis lu haram moom kenn du la ko jàppe ndax loolu amoo ci pexe waaye loo xoolal sa bopp tam doon lu haram loola doon na lay wàññi sa koor dox itam bu dee yaa doxal sa bopp jëm ci loo xam ne lu araam la ba tey loola yaa ko defal sa bopp loola ba itam bokk na ci li nga xam ne day wàññi sa darajey koor déglu déglu itam ak dégg xam nañ ne bokkut dégg moom amoo ci pexe waaye déglu nag yaa ko yaa ko jublu bu dee da ngaa déglu loo xam ne lu araam la nanga xam ne sa koor ba tey nam waroon a mate matewu ko lépp bépp xalaat boo xam ne xalaat bu ñaaw la itam nanga nga fexe ba ni nga bàyyee lekk bàyyi koo naan bul xalaat benn xalaat bu ñaaw fexeel ba say xalaat yëpp na doon xalaat yu rafet say jëf yi tam doon jëf yu rafet ndax loola mooy tax sa koor moo mat ni mu war a bare loolu nag ginnaaw loolu nag ñuy tàllal suñu loxo di ñaan suñu boroom ba tey ci ak manam ak kàttanam ak talam ak ak ak ak ak sañ-sañam Cheikh Mamadou taxaa bi nga xam ne moo fi nekkal Serigne tubaa sëriñ Touba suñu boroom jox ko kàttan ak wér aku tal ba li nga xam ne yéene na koo defal lislaam mu def ko ni ko koy yéenee ni mu yéene ci doomu aadama yi te mu def ko ni mu koy yéenee te ñu ànd koog moom te daje cee ngërëm suñ borom di képp koo xam ne lislaam mooy sa waar itam ñi ngi lay ñaanal suñ borom jox la kàttan ak wér ak tal ak man ba li nga xam ne yéene nga koo def ci lislaam nga mën koo def te ànd kook ña nga ko war a àndal te daje cee ngërëm suñ borom loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko ñu yàlla nañ ko defal ginnaaw loolu nag ñu ñaan suñ borom moom mi nga xam ne mooy borom kàttan mooy borom man lépp loo xam ne jëf nañ ko ci weeru koor wii ci jëf yu baax yàlla nañu ko nagul lépp loo xam ne def nañ ko te ay rëcci rëcc ci ay rëcci rëcc yoo xam ne du doonul suñ jullu yàlla nañ ko suñu borom jéggal faral na suñuy bàkkaar te loolu mën na ko ndax moo waxal boppam ne day day far ay bàkkaar wax ne itam ku ko ñaan mu wuyu la kon nag ñu ngi koy ñaan ci ci loolu mu may mu defal na ko suñ borom mi nga xam ne mooy boroomu man te mooy boroomu sañ-sañ te mooy borom kattan te xam ne def na weer wi mu doon weer woo xam ne da ciy goreel ay nit goreel nag mooy kuñ tëpp dara nga xam ne faw rek li muy tekki mooy kon àjjana nga jëm ndax kuñ topp dara ku ne àjjana nga jëm kon ni ni ñu waxe woon ne lu bon du dugg àjjana waaye lu baax it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 اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم